ñacce na ñépp ni ñu weesoo yàqule nu ñépp yal na nu na weesoo yàqule yal na nu sax ci jëf ju ju nangoof ji yàlla bég ndég muy waral moram giif yal na nu sax waxtu wu jot jekk te wey ba dugg àjjana kook jekk yal na nu jëm àjjana sax ci àjjana ba dugg àjjana bu wóor ak àjjana yaa nañu jañ digub ku nekk ku digam ca walla dolli koo gëm ko gëm ab dig moo di fi dégg yam aw dig moo di ku ne fa nekk yal nay baax kay fekke déwén fawaka am yépp yiw ak mbir muy yewen yal na sunuy xol sax ci guy yëg guttu xoli ñu nuy bañ sax ci xëtt ak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 yal na li wey lépp ak li teew ak li nu jëm yéwén gug yàq dul amaka jëm ajana yal na jëm ci nun nu jëm ci moom fawuta yal na sax ci nun nu sax ci moom